di jëwriñ kuréel daara Fatou Fata bu Bambey. kon xam naa dañuy tàmbali waxtaan wi rek ndax xam naa moom tey gan kuréelkat lañ am te kuréel moom wax dëgg yàlla nit soo ko dalalee saa su ne rek da koy fexe dalal ci li nga xamante ni ci la gën a bëgg. dañu bëggoon xam yow instant yi ban que tamit comme ni ko waxee rek bu njëkk ba daanaka xool kuréelkat yi ñu si bëri wala njàngat yi ñu si bëri ay nit daara yi nekk euh, daawuñu woon farataal njàngam nasaraan yi waaye léegi ñu si bëri ñu ñuy jàng kuréel njàngam kuréel lu si bëri boo xoolee ay étudiants lañ ñii ay élèves lañ ñii dañ yëngu ci wàllu nasaraan kon daanaka daal loolu la lool ñu tamit ci cas boobu lañ bokk pour instant bi ñoo ngi nekk en modélisation ak calcul scientifique c'est-à-dire mathématique appliquée la Xaadim ñoo ngi lay sant bu baax ci parcours boobu nga xam ne parcours bu am solo la ndax euh, ku la déglu ni nga leeralee parcours bi xam ne vraiment jàmbaar dëgg nga ñu lay ñaanal bu baax a baax rek ci barki sëriñ bi xaside yi fi nga bëgg yegg ci nasaraan gi rek suñu borom yeggale la fa te loolu tamit day doon ab soññee ci murit yi ñu xam ne euh, njàngum xasida teewut nit ki yegg ci benn niveau d'étude benn bi ndax tey boo xool réew mi ñi ko ŋànk ñu ci ëpp ay murit lañ te on peut citer d'autres yoo xamante ni ñoo ñu ñu ñu bari lay doon ci yoon wi kon nag di lañuy ñuy lancer appel boobu rek nit ñi nañ góorgóorlu bu baax a baax te xam ne xasida moom mun nga ko boole lu ne te am ci lu kawe sa njot kon suñu xaalim dañuy dugg nag ci waxtaan yi liñ tax a jóg ndax tey ñun ñëpp xam nañ ne kuréel kan nga kon dañuy seq ay jéego daal di koy fas yéenee nag seq yow ci lu mel ni wàllum njàngum kuréel ñu bëggoon a xam yow kuréel gi man at nga tàmbali. ña ngi ko tàmbali ci ay lu tollook 2000 2006 parce que yàlla dafa dogal bi ñu duggee si daara ji daara fat Fata euh, fa lañ yàlla def na fi lañ jàngee ay liir ijji fa lañ ko jàngee bi ñu ko jàngee tamit ba pare kon dañoo fekkoon daara ji di doxee ne ku dugg rek ci nekk tu tànk da ngay commencé par kuréel foofu lañ tàmbalee ku tàmbalee kuréel ay 2006 yooyu lañ tàmbali kuréel waaw kon tamit loolu ni nga ko waxee noonu rek la ndax daanaka mbir moom des fois nit ñëw tàbbi ci te du xamagul raison yi lay tax mu tàbbi ci lool waaye lu muy gën a dem au fur mesure muy dem muy gën a gis bunt bi ci côté boobu noonu. léegi bëggoon nañoo xam aussi sa jaar-jaar ci kuréel ndax euh, ci kuréel daara ji ndax euh, nit dañoo seetlu ne daara yi bu tàmbalee ñëw day am ay kuréel pipi am ay kuréel 3 kuréel 2 ak kuréel 1. ñu bëggoon a xam yow sa jaar-jaar ci kuréel yi avant ngay accéder ci kuréel euh, daara Fatou Fata. waaw loolu dëgg la euh, kuréel moom ñoo ko tàmbalee ci kuréel du tànk comme ni ñu ko waxee woon rek ci commencement bi bi ñëwee ñëw dugg si daara ji ba jàng ji ba pare ba jàng ci alxuraan ji lañ commencé kuréel bi ñëwee fekku nañ ci benn kuréel gu ñuy wax kuréel tu tànk boobu jamono jooju daara ji amoon na kuréel tu tànk benn kuréel tu tànk rek moo fa nekkoon bi ñëwee ñoo ko fekkoon ay am na suñu morom tu tànk fekkoon

Euh, bokkoon na tamit sax li nga xamante ni dañ ko faral di wax ñu ne man maa maa maa bokk si du tànk yi nga xamante ni ñoo njëkk kuréel du tànk dem ci kuréel 1 gi yooyu laa laa demee ci kuréel gi mm, la noonu laa fa nekkee noonu ba ba ba ba ni may door a jiitee kuréel gi en 2010 waaye daal foofu njëkk jaaree kuréel 1 rek laa jaar def fa 2 doo demaat si kuréel 1 gi en 2008 en 2008 laa laa jógee kuréel 1 tout tànk dem ci kuréel 1 euh, gu mag gi waaw moom jëru maa jaar si yeneen kuréel yi daal moom noonu noonu daal la fa demee waaw. incha allah sëñ am na solo lool ndax euh, ni nga ko waxee moom foog naa matale na lool léegi ñu bëggoon a xam aussi ndax kuréel ku ku ne xam ne dafa ànd ak ay difficulté te formation bi aussi mën nañ ne du formation boo xam ne formation bu neex la ndax am na tàggatug baat des fois sooy doog a ñëw dégg daaj yi day des lool ñu bëggoon a xam yow sa formation nu mu demee woon ndax fàttali nga ci ay étapes yoo xamante ni c'était très difficile ak aussi eh, ni nga ko doon àndee tamit ak mbokki taalibe yi ndax tamit bëggoon nañoo sax débouché ci question boobu mais répondre nga ko mooy bëggoon nañoo xam tamit ñi nga xamante ni ñoom nga bokk bokkaloon kuréel ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen doon formé ci kuréel ci daara Fatul Fata. waaw mm, loolu loolu waaw li ñu ci tontu mooy eh, kuréel moom comme ni ko waxee rek ñëpp xam nañ ne moom wax dëgg yàlla yombul te booy da nga da nga ci eh, am ay jafe-jafe yoo ko ci mm, comme ni nga waxee ci bokk na ci yooyu wàllu dégg-dégg yi du du neex ndax da ngay da koy door a tàmbali eh, wàllu baat bi tamit am ñoo xamante ne nii kon sama sama genre gi bi ñu ñëwee ñëw daa daanaka baat bi taxu demee noonu daanaka yooyu ay yoo xamante ne nii yoo xam ne dañ dañ ci doon liggéey ba ba xaw cee tane rek waaye. comme ni nga ko waxee effectivement yow amoon nañ ko amoon nañ problème boo xam ne problème baan moom xanaa ñi ma bokk noonu guddee ñoom ñëpp xam nañ ne amoon naa ko loolu sax. waaw kon sëñ Xaadim tamit ñu bëggoon a euh, ku wéy rek jataay bi ba tey bëggoon na ñoo xam tamit nga wax ñu ci cosaanum njàng ndax tamit buñ nee kuréel kat euh, wax dëgg yàlla tamit suñu xel day dem ci mag ña léegi nag ñu la doon laaj ci cosaanum njàng laataa loolu nag dañoo bëggoon nga euh, choisir benn ci daaju mag ñi nga jàng ko 30 secondes ولي قادر ربي خير أن الأسنى نفع مالكي ما سأني خبل رؤية وسرت له أبدا قديما لزل ازنا waaw daay boobu ñu jàng bu dégg xëy xëy na mu mu xam ne si waa si sëñ Mey moo ko doon jàng waaw te sëñ Mey it comme ni nga ko waxee rek daanaka saa boo ne original moom sûrement suñu jamono tey jii nga xam ne daanaka moom bokk na ñun bu ñëwee ci mag ñi nga xamante ne ni seen i kaset yàlla daa def mu am mu am mu am. ñoo lay sant bu baax a baax ci njàng mu am solo mi nga fi yëkkati muy njàngum Serigne Mayib Gueye wax dëgg yàlla njàng mi wér na lool te am na solo te tamit ni nga ko waxee rek mag ñi moom ñooy ñooy cosaanum njàng te foog naa am njàng bu yegsee fii keno yi yi téye woon am njàng ba fii tey foog naa ne mag ñi la kon nag luñ luñ mënti am tey ci kuréel wala fu kuréel kan mënti yegg saa su ne war nay delloo ci kon mag ñi léegi suñu xaay mi a xam ne ndax yow da jaar ci yeneen kuréel wala ci kuréel daara Fatou Fatah rek nga nga mës a yam ci kuréel. waaw man moom yàlla de de def na si daara yi laa Fatou Fatah laa njëkk a kuréel nag waaye tamit en 2006. parce que boo xoolee da maa ngi 2006 boobu noonu ci 2006 bi bi ma tàmbalee tàmbali rek yàlla damaa xiiroon ci ma bëgg kuréel daal mujj gi damaa mujjoon bëgg kuréel ba mujj gi eh, dama doon gis ne eh, bëgg faa nag loolu moom yàlla yàlla yàlla na ko ci man ba jëroon naa bokkoon ISRA en 2006 tamit 2006 boobu ci laa duggee ISRA am na tamit ay kuréel yoo xamante ni ñoo ngi comme bokk na ci mooy bu naa fekk bu seen Bambey boobu tamit jaar naa fa jot naa fa yàgg tuuti ak kuréel bi bi bi bi ñu sasoon lycée lycée bi am na benn kuréel bu fa nekkoon foofu yi tamit joroon naa fa bokk. ma bëggoon a xam lan moo la poussé woon nga nga nga dugg ci par exemple ndax ku ne universitaire nga xam ne kuréel ci kuréel yu mag yi lañ bokk comme maanaam da nga faa demoon ngir maanaam gën a wéral sam njàng wala da nga faa demoon ngir tamit gën a yokk ci am njàng. waaw universitaire moom. gis gis nekk xam na ne ba fay dugg euh, yàggul parce que 2006 at bi mu duggee ci ci daara Fatou Fata daanaka teguñu ay weer rek daanaka la ñu teg yaa ngi ay parce que boobu gis nga ne boo commencé commencé cassette bi ñu lay njëkk a jox mooy cassette Hizbut-Tarqiyyah ngay déglu cassette yi ngay dégg yëpp cassette Hizbut-Tarqiyyah lay nekk te Bambey fii bokkoon ne jàpp naa ne Hizbut-Tarqiyyah mooy cassette yi ëpp lu ñuy déglu fii daal moo tax da yaakaar ne fala fa fala am njàng nekk te comme xëroon nañ comme ni ma ko waxee sànq xëroon nañ ci njàng moo tax ñu demoon foofu noonu ngir daw ngir ngir mën a jàng ngir bëgg a mën a jàng rek euh, moo taxoon ñu dem fa mooy kon booy kon dama koy résumé waat si yokkute rek ngir yokkute gën a gën a xam ci li ñuy def dara loolu taxoon ñu demoon ISRA bañ fa demee tamit ñoo ngi ci saluwaale au passage sëñ Momar jóob wax dëgg yàlla moo moom taxaw nañu lool ci ci ci wàllu kuréel daanaka lu bëree bëri xamal nañu ko ci kuréel moo tax daanaka duñ ko fàtte moo it mukk duñ ko fàtte mukk waaw ñoo ñoo ñoo ngi nuyu bu baax a baax a baax. Xaadim ni nga ko waxee noonu rek la ndax nit moom foog naa boo dee danga ngaa ci mbir bëgg cee def carrière wala nga bëgg fee yegg fu sori foog tamit des fois ngay ay recherche yeneen wala tàbbi ci yeneen kuréel ngir gën a mën a yegg fa. léegi ñu seetlu ne tamit dafa am benn feebu xew léegi mooy maanaam kuréel yi léegi daanaka dañuy dañuy seetlu ne kuréel léegi dañuy jàng ay daajoo daanaka duñ ko royee ci mag yi wala léegi fent mi bëri daaj ni ñu ko bëggee wala nit sax des fois tëju daal di créer daaj boppam daal di koy génne daal ne lii sama daaj la léegi yow fee boobu noo ko gisee tamit kuréel yi léegi noo leen gisee par rapport ak kuréel yu njëkk ya léegi question xam na euh, xam naa ne dañ ci demee dañ ci yëm a waxee sax suñu xalaat rek euh, foofu loolu moom ni ñu gisee mooy euh, c'est-à-dire bonul daal bonul nga créer daaj waaye rek li daam lu lu ko jiru ci ki daaj comme ñun ñëpp ni ñu ko xamee mooy daam daaj yoo xamante ne nii wax dëgg yàlla ay daaj cosaan la wax nga ko sànq nii te daaj yooyu ñëpp xam nañ ne sëñ ba am na yoo xamante sax sëñ Touba moo ko sa mag ñi ñoom ñu koy jàng kon waa daaj waa kër sëñ Massa Mbaye kon yooyu ne tamit nag boo demee bay fent yi war nga ci cee góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax ba sant ji doo door a commencé fent waaye man li ma ci gis benn defu moo ci gis rek mooy gis naa ne ñoo xam xamante ni sax daaj yooyu dañ dañ koy oyofal daanaka duñ ko jàngate dañuy gën a sawar ci yee ke jàng daaj cosaan yooyu loolu loolu daal laa jàppee erreur mais à part gis naa ne tamit te parce que xam ñëpp xam nañ ne nag xam-xam fekk mu am rek wala fekk mu ngi mu ngi mu ngi gën a développé eh, dan dana am ñoo xamante ne dana dana mën a fent kon wax dëgg yàlla léegi ñu gis ne aussi yéen seen daara demoon ngeen ren xasaay door ba te tamit dañ gis ngeen di jàng yenn daaj yi ñu bëggoon a xam yéen seen daara ndax da ngeen di fent ay daaj wala aussi da ngeen a yam ci mag ñi li nga xamante ni moom lañu doon jàng aussi dinaa ci yokk beneen question mooy maanaam ndax yéen daa am kuréel goo leen di roy ndax xam nga tey yoonu murit euh, daanaka am na kuréel kuréel yu mag yu fi ne euh, ñuy ci nuyuwaale ñi nga xam ne ñoo nekk ci kuréel yu mag yi lu ci mel ni Hizbut-Tarqiyyah Daaru Xudoos euh, Hizbut-Tarqiyyah bu mag di ñoom sëñ Ablaye Diop di nuyu ñoom sëñ Mor ak kuréelkat yu mag yëpp suñ limee dañuy juum am na ñoo xamante ni ñoom dañuy jël kuréelkat yooyu di leen roy ndax comme li alxuraan naan laxat kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana te Sëñ dama daan dégg muy wax ci ay waxam naan mag ñi àndoon ak Sëñ Tuubaa saaba yi ñoo doonoon seen bàyyi ci diine kon nag ñun ñi nga xamante ni ñoo fekk jamono yi Sëñ ak jamono yu doomi Sëñ Tuubaa yi Sëñ Abdu Lahat nee na ñun mag ñi àndoon ak Sëñ Tuubaa ñooy suñuy bàyyi ci diine léegi mu bëggoon a xam ndax yéen da ngeen a yam ci roy mag ñoom noonu àndoon ak sëñ bi ñu ci mel ne ay Sëñ Aliou Fall Sëñ Mayib Gueye Sëñ Alaaji Si ak yenn Baye Mbàkke comme ni nga waxee am na ay kuréel yoo xamante ni naka jee comme ni ko sëñ Tuubaa eh, yoo waxee rek yàlla waxee loolu tamit moom chaque jour ak ak ak mooy axal nga wax eh, ay arxaan boobu nga wax chaque jour nit ki moom mënut a ñàkk moom koo xamante ko rey te tamit nit moom loo yàgg yàgg yàgg lu si lu si ëpp di nga gis loo xam ne moo la fi jiitu te tamit ñu foofu waa Daara Fatou Fallane ni ñu doxee mooy dañuy fexe ba di comparer yenn kuréel yi ak mag ñi. mais bu nekkee da ngaa da ngaa nekk kuréel bu bees sax wala kuréel boo xam ne yàggul noonu ba pare te sam sam njàng niroo mag ñi ngay dundal mag ñi li ngay jàng mu mu teg mu tegu si yoon ñu gis ne xaw naa niroo ni mag ñi doon defee dan dan lay roy comme ni nga waxee noonu bokk na ci kuréel yi nga xamante ne ni lu si ëpp dañuy répété dañuy ñoom dañuy jàng ay daaj ba pare ñu ñu leen di wóolu ñu leen di wóoloo roy bokk na si ñooñu Isdal Xëy Ablaye Diop kooku mooy kuréel gi ak ab kuréel tamit euh, Daaru Xuddoos tamit dañ koy rey am na seen njàng yu bëri yoo xamante dañ koy jàngaat. ni nga ko waxee rek noonu la ndax yoonu murit moom foog naa roy ak ak ak moo fi ëpp solo ak romb te tamit daanaka comme que kuréel yu mag yi ñooñ jiitu ci waar wi des fois aussi foog ñuy référé wu ci ñoom waaye comme ni nga ko waxee tamit am na solo des fois ngeen jël ay daaj roy ko ci mel mag systématiser waat ko daal di koy jàngee yéen ni nga xamante ni moom moo gën a jàppandi ci yéen vraiment loolu muy lu am solo euh, maa ngi dégg fan yi benn làkk Daaru Salaam bu leen di jàng bëggoon a xam boobu mag moom loolu kan moo ko jàng ci mag ñi te tamit ñu bëggoon tamit nga jàng ci tuuti pour ñi nga xamante ni ñooy bëggee émission seen jataay nekk fépp ci àddina bi tamit nekk tamit ay ñoo xam ne dañ lay bëggee tamit la topp saa su ne ci kuréel ñu bëggoon tamit nga jàngal leen làkk daaru boobu tamit. mu ngi tudd ñoo ngi tudd làkk daaru salaam euh, boo xoolee ineen yi ci làkk daaru salaam benn béy la boo xamante ne nii ci biir ineen yi waxtu la nekk it ki euh, naan xaarim bi lañ dégg mu jàng ko. te ñu nit dañoo rafetlu wax dëgg yàlla moom ni muy jàngee eh, ak ni muy dundalaatee mag ñi parce que ñun tamit lii lii boobu la ñu am doctrine boobu la ñu am képp koo xamante da ngay dundal mag ñi rek dañ lay fonk moo tax sëñ Bola Mbaye kon boo xoolee am na mag ñoo xam ne ñoo jiitu waaye am na yeneen jànkat yoo xamante tamit bokkuñ ci mag ñooñu waaye ci même lancé bi mag yooyu nekkoon lañ lañ nekkaat ñoo ñoo ñaar ñooñu mën lim saa ngi ñun ci la leen boole muy sëñ sëñ Xaadim Gueye ak sëñ Bola may moo tax xasin xaan gi bi nga déggee mu jàng làkk daru salam bam ñu xol ne war nañ ga mëna kurel tamit dañ dañu lu ne war nañ ko mëna jang jàng waaw bo it moom ñoo ko ñoo ko ñoo ko non lañ ko jàngee daal laka daru salam rabbi wa li yakun rabbi fi ma zahuduni waaw loolu mooy loo may rimbi rek mom moko ko rek ñu jëm go royé ci moom dund ko rek parce lool ci xasida yi waaye kon moom dañ ñu koy jàngal ba ci kuréel am na solo te lii tamit soññal wax yàlla ci kuréel yi ñu xam ne tamit kuréel yu mag yi jàmbaar lañu waaye tamit ku ku teg sa tànk fi kuréel yu mag yi tegoon seen tànk rek bu soobee yàlla fi nga yegg fi nga bëgg a yegg mun nga faa yegg te nag mag ñi bari nañ ndax daanaka original yaa ngi fi mag ñu bëri kenn jàngaguñ leen tey ku mel ni Sëñ Samba Wade mi ñu dëkkal ci dëkk bi rek am na ay original yu bëri yoo xamante ni jàng na ko ak tamit yeneen i mag am na ay mag ñu ne ci dëkk bi ku mel ni Baye Badangom ak ay yeneen i mag yu ne ci dëkk bi ñu leen di nuyuwaale tamit de passage te di leen ñaanal tamit suñu borom yàggal leen fi lool. léegi tamit bëggoon na ñoo xam ndax tamit kuréel moom ku ciy yëngu foog naa comme ni ma la ko waxee woon sànq rek mag ñi moom la ñuy roy léegi nag man bëggoon naa xam mag ñi nga xamante ni ñoo doon jàngal sëriñ bi kan moo ci sa mag mi nga xamante ni daal moom mun naa ne moo ci sa royukaay man ngi jaaga sëñ bi de xam naa ne euh, sëñ Cheikh Fall daal laa dégg ñu ne moom euh, moom doon doon na jàng ba sëñ bi kontaan ba ba fi taxu waaw moom moom moom it ba ma teeloo am njàngam di commencé déglu kasetam gis naa ne am njàngam mujj na maa neex lool waaw waaw moom moom it dañu doon teelu bu baax Cheikh Fall bi comme bu bokk na si biir lii bi rek kon kon jësu bi euh, turi daa fi ha bi nujum عن السماوات رجيم وفارخان سرا يليم بزبه ذا وكمي الحمد لله المبين من كونه لي بن على الكتاب المسبين مع جميع امين yàlla am na solo lool sëñ Xaadim ndax ku dégg ni ngay jàngee rek xam ne baat bi moom yaa ngi koy tàggat te tamit yaa ngi ci li nga war a ne comme kuréelkat te tamit xam nañ ne yaa ngi déglu mag ñi ndax lii moom ku déglul mag ñi yaakaar naa buñ tebee ne la jàngal ci mag ñi foog naa di nga am problème pour jël menn mag sax jàng ko léegi comme comme que tamit mag ñi dañuy woy ba tey ndax daanaka comme ñooñu newatuñ ñu bëggoon mag ñi ñu noonu ñi nga xam ne ñun ñoom lañ jamonoon teel kan moo ci sax mag nga wax ñu ko ba pare tamit jàng benn bayit ci ci am njàng. loolu dëgg la comme ni am na mag ñoo xamante ni ñoom li seen liggéey mooy yeesalaat ñi nga xamante ni ñoo jamono Sëñ Tuubaa boo xoolee sëñ Boole Mbay moom sax wax na ko nee na yu bëri yu muy jàng. mooy muy mag ngi jàngoon rek léegi daal di koy jàngaat waaye nag xëy na baat bee changé ñu bëri yaakaar ne am njàngal waaye moom it daanaka noonu loon doxee léegi ñoom tamit barke boobu ñu ñu barkeelu ci mag ñooñu ñun tamit ñun noonu la ñuy barkeelu ci ñoom sëñ boole moom dañ koy topp lu bëri sëñ sëñ sëñ daal moom dañ koy topp lu bëri li ëpp lu ñu roy mooy sëñ boole boobu noonu moom daanaka am na ay ay ay ay ay kese tam jàngam yu bëri yoo xamante ni jàng nañ ko bokk na ci yooyu noonu ay kii euh, faaxa jami xal lan bi yaa ay ay alhamdulilahi lazi jaaz yi ak yaqulu ahmadu ja mooy jaalibul masarra bi yooyu yu bëri yoo xamante ni ak alhamdulilahi mu ji si xadar yooyu yëpp ay ay daayam yoo xamante nii dañ koy teewlu bu baax a baax xanaa ñu jéem jee mbeen mbéyéer rek yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa hibbana salli ala xayril wara muhammadi waali ma siya binduma bi wax dëgg yàlla de am na solo lool li nga rëy moom suñ boole moom wax dëgg yàlla dañuy ñaan rek suñ borom gën laay jàppal boppam ba fi nga bëgg a yegg ci xes de yi nga yegg ndax moom roy gi am na solo lool wax dëgg yàlla ñu bëggoon a xam tamit comme kuréel mag yi ma la doon laaj léegi ndax am nga ci yow sa kuréel goo xam ne yow personnellement moom moom moom nga mun na du ma ne moo la gënal ci mu njàng waaye daal moom ngay topp cim njàng ak lan moo tax tamit nga leen di topp ci am njàng. waaw waaw kuréel yooyu moom wax dëgg yàlla moom loolu moom ñu bëri xam nañ ko ci man sax muy waa waa Daaru Muxti moom yàlla yàlla moo moo dogal rek ñoom moom wax dëgg yàlla moom rek laay déglu te du du du ma saabi mukk te te tamit wax dëgg yàlla su ma sañoon mën ko ñoom ni ñu ko jàngee Daaru Muxti daal la xam ne moom te nag bu ma koy déglu ma jël du ma déglu keneen ku dul mag ñi rek laay déglu. sëñ Xaadim ñu ngi lay santaat bu baax ci leeral yooyu am na solo lool. xam naa nag daa mel ni émission bi moom li ci des bëriwul ñoom ñu koy signalé sax waaye xam naa bëggoon nañ tamit laaj la yow comme yow bu leen daan defar seen baat bu njëkk seen baat nan ngeen ko daan defaree ak tamit ñu bëggoon ab soññe boo xamante ni day jëm ci gone yi nga xamante ni dañoo jug bëgg doon ay kuréelkat te xamaguñ yoon wan lañ war a jaar pour yegg niveau bi ngeen yegg si yéen. loolu loolu moom mm, ni ñu ko defee bu njëkk ba bëri woon na comme ni ko waxe rek defa boy booy door a da ngay xër ba daanaka lo dégg rek dang koy jema essay ñun daanaka bi ñu door a tàmbali kuréel yu beure beure bëri def nañ ko yo xamanteni dañ koy dégg ñu naan lii day defar bat ak li da nga yàq ak ñuko ko maydu yu beuri dañ ko doon dégg waye buñu ba ci ba ci fin bi daal bu ne ba ci biir lay xamne daal surtout man bok la la xamé ne yaakar na am jang lu beuri daal ak sak jour di di jang lu beuri daal la xamne ne. moom moo moom moo gën a yomb daal parce que am na ñu naan la ay xëddeem day defar baat wala ay nangam nangam day defar baat ak yooyu nga xooy lii waaye des fois mën naa sax doo ci gis ak lii waaye boo dee ba ci biir daal day gis ne di jàng lu bëri lu bëree bëri day tax moom moo gën a gaaw ci defar baat waaw foofu tamit comme ni nga ko waxee rek ñi nga xamante ne ñoo tamit ñoo ngi door tàmbali li li nga xam ne moo gën a gaaw ci kuréel mooy lu si ëpp mooy lu si njëkk mooy positif parce que kuréel nag amul amul ah, yeex cee ñëw ak koo xamante ni moo la ci njëkk loolu loolu amu ci lan moo ci am mooy Pastef ak képp koo xamante ne ni yaa ngi door tàmbali yaa ngi tàmbali rek ki lay répété li fi la jaarloo nga nekk ci rek daaj yi nga xamante ni war nga ko répété nga nga jëm ko répété ba pare mag ñi nga xamante ne ay daay cosaan lañ nga jëm koo tàmm parce que ñu si bëri fii nii ñu man gi am ñu bëri ñoo xam ñu àgg fenn fi cukaréel loolu loolu moom mooy mooy seen change dañoo teel mën mag ñi te gis nañ ne mag bi boo xasee bu mën rek sa coono daanaka day jeex bëggoon nañoo xam tamit yow ci kuréelkat yu mag yi est-ce que am nga ci idole koo xam ne mën nañ ne idole comme sëñ Isma des fois di ko nuyuwaale au passage moo ak sëñ ak sëñ Cheikh Badiane mais ma sëñ Isma moom ku ko ku ko ku ko tudd rek sa xel dem ci sëñ Malick ba ndax moom sëñ Malick lay doxee moom lay waxee kon nag yow tamit dañ lay laaj ndax kuréelkat yu mag yi am nga ci idole ak lan moo tax kooku nekk sa idole. waaw loolu dëgg moom lu si bëri moom di nga am idole moom lu si bëri eh, surtout ak ñun ñii sax nga xam ne yaagu ci yaaguñ ci noonu te bu ñuy ñëw am na ñu ñuy fekk ñuy kuréel loolu ñaaku du ñàkk waaye man de ba ma doon tàmbali eh, man daanaka Abdoulaye Diop laa xamoon moom moom laa xamoon kon li mu doon jiite noonu daanaka moom laa ëpp woon lu ma doon xool kon moom daal daal lu si ëpp moom laa doon moom laa lu si ëpp loolu dama fexe di daaje ni muy ni muy duggee di xool nan lay duggee ak nan lay jiitee am njàng yooyu yëpp dama dama ko jéem a di xool wax dëgg yàlla moom xool naa ko ci lu yàgg yàgg yàgg yàgg waaw moom daanaka lu si bëri moom laay xool moom te tamit am njàngam gis ñi ñëpp xam nañ ne day am passif lool du am ben caaxaan té tamit gis nañ limi day ñepp xam nañ ni wàllu dugg moom mën ko lool mëna na jiite tamit loolu tax naa lu ci bëri moom la doon xool ci ku ci wàllu. Mm, suñu xaayam wax dëgg yalla amna solo lool ndax xam naa moom waxtaan bi jotaay bi man man rek wax dëgg yalla dama cee sant bu baaxa baax ndax jotaay bi da am solo lool té jangate daate naa ci tamit du bëré bëré bëri xam naa nag émission bi li ci des bëriwul question bu mujj bi rek lañ lay poser après nga terminer ko par une prestation bo xamanteni yow yaa xol daaju la neex. Euh, nga nga tëjee ko ko jàng jàng ngir bégalee ci ñi ñu doon seetaan ci émission bi kon bëggoon naa xam yow est-ce que fii nga yegsi ci kuréel xalaatoon nga un jour ne di nga fi yegsi mooy question bi avant dernière question bi bi mujj nag mooy sa histoire kuréel sa histoire kuréel lan moo la ci gën a marqué. ni nga dëgg la wax dëgg yàlla gë gëmu naa nag kuréel moom comme li ma waxoon ci commencement bi rek ba man xarala baabaaw lajjoo laaj bu bëri boobu nga xam gëm naa dinaa fa dinaa fa àgg waaye gëmoon ne eh, ba may tàmbalee gëmoon ne dinaa dem bay jiite waaw defuma woon sama xel bàyyi ma sama xel daal xëy na dañoo dañoo dañoo dañoo def si diggante bi waaye waaye nag gëmu naa ne nag comme comme comme bëgg-bëgg bu moo ngi fi woon ak ak jéem ak jéem am passeef bi mooy ngi fi woon naa ne dana dana dana ci dana ci mën dara as tuut sax waaye ji yaakaaru moo ne nag dinaa dem bay jiite loolu yaakaaruma ko woon waaye nag bi bi bi ko yàlla dogalee bokk na sax ci li nga xamante ni moo ñu moo ñu gën a marqué parce que da tàmmoo woon jiite nga jékki-jékki ba ab diir rek ñu jiital la loolu it xam-xam nga ne loo xamante ni kenn du ko fàtte waaw kenn du ko fàtte waaye sëñ bi nga xamante ni tamit jiite la ñu defoon na ci tawfeex ba daanaka nañ yaakaaroon noonu lay jafe jafe loolu te loolu tamit mbokk taale bi nga yi nekk sa ginnaaw lay lay nekk rek parce que ñëpp xam ne jëriñ moom lu jëpp moom bala moo mën a doxal il faut nit ñi déggal ko ñu jox benn cër bi ak nit ñi tamit jàppee ko comme comme sëñ bi rek jàpp ne sëñ bee ko teg ci seen kanam rek loolu it maa ngi maa ngi sant ñi ma ñi ma seqal liggéey bi dañ bëri loolu te xam naa ne bu ma limee kenn tem ñeneen ñi du leen mën a lim waaye ñoom ñëpp xam naa ne xam nañ seen bopp ñoom maa ngi sant bu baax a baax. kon a la nga daal di koy jeexal ñu tëj émission bi. waaw xanaa di di sant rek waa Eh, eh, waa si internet bi eh, sëñ di sant Cheikh bu baax baax njëriñ daa am yoo dafa làqu te yéen li liggéey bi ngeen def nii day wane njariñ yi nga xam ne dafa làqu te ñu bëri am na mag yu bëri yoo xam te ni ci ci bi laa ko xamee parce que dama ko suivre vraiment ñu teg ñun waa du leen xam kon yooyu noonu ay njëriñ la yoo xamante ni yéen a ngi koy jëriñal nit ñi ñi nga xam ne bëgg ñoo jëriñ yombal li leen ba ngeen àgg fa bu baax a baax a baax ay émission bi rafet nañ tamit li ngeen ciy def yi activité yi ngeen ciy def yëpp ziare yëpp ñoo ko jox yëpp wax dëgg yàlla ñoo koy jox man moom ma gis ma ko bànn sax ba dama abonné comme ça bu sonee rek euh, bu affaire bi ñëwee rek damay dem seet seetaani ko parce que xam naa ne njariñ la te tamit wax dëgg yàlla maa ngi leen ci encouragé bu baax a baax a baax li leen di sant waa daara ji rek ak mag ñooñu ma tuddoon ci baax ñoom sëñ Talla ak ñoom sëñ Basak waaw ñoom sëñ sëñ Juum ñoom ñëpp ñu ngi leen sant bu baax waa sant waa Daaru Xorofaa ñoom ñëpp ñoo bokk liggéey bi ñoom sëñ dañoo teel a bëgg xasida yi ñoom dañ dañ doon bu baax baax maa ñaan sama waajur wu góor maa ngi koy ñaanal bu baax boole di ko boole Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa teere ko si àjjana yi gën a kawe sama wajur bu jigéen tamit maa ngi ñaanal bu baax yàlla guddal ak fanam may ko ak wér di ko ñaanal tamit mbokk taalibe yëpp xam naa foofu foofu lu aqlaami إلى لا أبدا بلا خلوة ولا وهبها كما أهنا هدية ربي داتي لا يروريدا إلينا كما خاتي يا بل هم المهنا أيت من ناديات بنفسكم ولي خاد ربي خير را آن آل نفى مالك ما ساني قبل رؤية وسرت له أبدا قديما لذي الأسنام بدا لي أن الله لا رب خيره وأن رسول الله إفاخ الورى أسنا كتبت وإني ذاكر لا سزستك وأني مهما سأ أهن الله يسألنا. sëñ Xaadim wax dëgg yàlla njàng mi am na solo. yàlla moom am na solo lool eh, kawe na njot te tamit daw na yaram lool ñuy ñaanal suñ borom rek gën a wéral baat bi li ma la ko waxee woon sànq di la ñaanalaat bu baax a baax tamit fépp foo xam ne daal bëgg nga fa yegg ci xaside bi xaside yi dañuy dañ lay bàyyi ak sëriñ bi ndax sëriñ bi moom mooy mooy fayal boppam mooy jàppal boppam mu jàppal la boppam yeggaleel la foo xamante ni sax sa njortu yeggu fa woon ci barke xaside yi kon tamit ñoo ngi santaat bu baax a baax ñi nga xamante ni ñooñu doon topp ci seen émission seen jataay ñu dalaloon tey Serigne Khadim Thiaw muy jëwriñ kuréel newut Bambey lim fi ne bëriwut waaye nag kon ak jotam disponibilité am tamit loolu dañ ko ci sant bu baax a baax di leen wax tamit yéen ñi doon topp tamit seen émission seen jataay ci biir réew meeg ci bitim réew seen émission seen jataay tey fii lañ leen di yamale ak sëñ Xaadim leen jox tamit jox daje ci yeneen émission seen jataay ak yeneen yi invité incha allahu rabbi kon nag ñoo ngi yamale foofu suñuy kàddu rek te wax wa aaxiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin